télévision Futur Média mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg yi ak ponk yi ca gën fës muy tiis wi dal ci kaw réew mi ba Badara Diagne ñu gën ko xam ci Golbert euh, génn na àddina ni ngeen ko xamee doomu ndar bi euh, def fa itam liggéey bu am solo diite itam rajo liggéey jëm ci wàllum xibaar waaye itam nekk artiste bu mag moom Golbert Diagne ci juróom-ñaar fukki atam ak juróom-ñeent ci la génn àddina di ngeen dégg ci biir xibaar yi nataal bi waaye itam ñu fas yéene ci waxtaanee ak suñu naataango muy doyen Abdou Aziz Mbaye maam Fama ma mu ngoog di la jox sa wàccuwaay di la jaale lu ñu bokk beneen ponk mbokk yi muy itam lu jëm ci jàngoro ji di coronavirus tey ji itam ci bilan bi téeméer ak juróom fukk ak ñett yu nu defal test fukk ya ñoom ñoo am jàngoro ji di coronavirus juróom ñaari euh, cas importé la dañoo jaar ci frontière ba juróom ya di cas ay cas contact maanaam ñu ko dugal ci réew mi ñoo leen ci wàll di ngeen dégg ci biir xibaar yi Abdoulaye Diouf Sarr porte parole du jour nekk itam jëwriñ bi ñu dénk wàllu wérgu yaram ci yenn kaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxee lu bokk yi ma ñëw léegi ñu faram fàccee. ngeen ko waxee ci bopp xibaar yi euh, àddina wala bokk euh, Sénégal sax mënees na ko wax ne danoo euh, daal di bëccëgoo ak tiis gu miti Alioune Badara Diagne ñu gën ko xam ci Golbert génn na àddina bokk na ci li ñu ko xamee lu jëm ci wàllum théâtre seen troupe boobu ak Baara Yego moom Alioune Badara Diagne bokk ci li ko gën a fësal ci àddina mu doonoon itam koo xam ne ñëpp dañu ko daan déglu moom Alioune Badara Diagne itam li mu def ci ab liggéey bari ñu tàmbali ak nataalu Salif Sow. ministère de la santé mu leen di yëgle mel ni dafa am tuuti jafe-jafe du ñàkk ñu waat ci kanam euh, ñu tàmbalee ak euh, suñu doyen di Abdoul Aziz mbay Mame Fama dégg nga euh, xibaar bu tiis bi dal ci kaw Sénégal muy Alioune Badara Diagne ñu gën ko xam ci Golbert wax ci moom dina yomb du yomb ndax qualité ya bari. qualité yaa bari inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mhm. soxna Fati boo dee wax Golbert da wax Golbert nit ak gëm-gëmam. Mhm. mooy fi mu fi mu ni mu juddoo. Mhm. fi mu bokk li muy métier te mu tànn ko. Mhm. lan la ko jox ci àq. Mhm. lan la jàpp ni moom moo war a nekk euh, taxawaayu nit. ci ci dundam. lan moo war a nekk nit di xalaat ëllëgam. ci boromam waaye lan moo war a nekk nit taxawaayam. ci métier mi mu jàng pour teral ci boppam waaye ci li nga xam daf koy def pour jàngal ci askanam mhm. yëpp yu ci nekk yëpp pàcc la yoo xam ni mën nañ koo wax mhm. ginnaaw ban ko jaalee njabootam mhm. jaale ko groupe Futur Média président Youssou Ndour waaye groupe Futur Média dellu si waat ci ci nga xam mooy malal li nga xam ne moom la mooy sunu nattangoo nekk fi di sunu doom waaye képp koo xam nag da ngay nekk ci réew mi dëkk ci gox am loo yéene gox ba ak loo mën a amal gox ba. loolu war nañ ko jàllee. ngoog ponk yi nga junj am na solo Malal Junior Diagne suñu naataango mu mel ni suñu waajur moo fi jógee tey muy euh, Alioune Badara Diagne Golbert yaa ngi wax ni euh, moom ndar la la la la juddoo doomu ndar la. Mhm. Euh, def fa liggéey boo am solo. boo nee Golbert ñu ne la akanité. akanité mhm. Golbert ñu ni doomu ndar la mooy wane ni nit dafay fonk fa mu dëkk. dafay mhm. bëgg fa mu dëkk. tout à wane ko ci taxawaayam mais wane ko ci wax ba pare di ko jëf. ndax nit. wax bu àndul ak jëf dafay naqaree gëm. moo tax gëm jëfam ci biir ndar ñëpp ko rafetlu beneen bi ci des fàtti bi am solo mooy nit ki. li mu joxe nit parce que nit amul maas Golbert ñëpp la maaseel. parce que boo nee diw sama maas la mooy am na ñoo xam ni duñu sa maas mais nekk maasu ñëpp mooy ku ci nekk nga mën a wax ak moom. li tubaab di wax il a son mot mhm. kon kooku war na am solo. très bien mu nekk itam ku organisé parce que bañ ko dalee dellu ci Sénégal yàgg na jaar na euh, lu jëm ci wàllum euh, tas xabaar yore sax groupe de presse yore rajo mais avant loolu mu liggéey euh, ak RTS foofu ci diwaanu Ndar Géej kon Alioune Badara Diagne Golbert itam ku tàmm ku teel a bëgg ñafe la. daf ko teel a bëgg bëgg a xam boppam dafa teel a xam ni dëkk ci dëkk bi bokk ci ñi defar dëkk bee ko gën moom dafa bokk ci defar dëkk daal xam nga bi mu nekk ci RTS di liggéey loolu day wane ñëpp mais am na ñoo xam tey ji reporter sportif la ñu ginnaaw laay jaw ak ñu topp golbeer moom ci la bokk très bien très bien te bu daan wax ci ci ci dëkkam mhm. da ngay xam ni amour day génne mhm. li nga xam ne moom la yëg nit nag bu dee yëg mhm. di wax li mu yëg day neex a àndal euh, tey àddina ko jooy rawatina ndar ga mu fekk baax ndar géej la ñuy dem fekki fa Ousseynou Diop Ousseynou ñu ngi lay nuyu Fatou maa ngi lay jaar bu baax a baax. mu ngoog euh, di la jaale lu ñu bokk Alioune Badara Diagne Golbert nga jaar ci ay loxoom euh, tey ndar bi nu yëgee xibaar bi ana lan moo fa xew. Fatou mën naa jàpp tey ni ndar a ñàkk ndaxte Aline Badara Diagne Golbert ku nekk xamoon na ko am liggéey bu am solo boo xamante ni mi ngi ko doon def ci diwaan Ndar géej wax nga que liggéey ci wàllu rajo bi nga xamante ni moom la daal di créé ci Ndar du daal di koy duppee teraanga rajo boo xamante ni am na liggéey bu solo boo xamante ni moom lay def tey jii nag Ndar ñëpp su ngëm tël bu ñu yëgee xibaar bi ñëpp ñu fi ñëw ci fi nga xamante ni mooy hôpital régional bu Ndar ndaxte Golbert liggéey na ko ci Ndar taxaw na waa Ndar waaye tamit fu mu daan dem ak ni ñu ko mën a xàmmee nekkoon na koo xamante ni daan wax dëgg nitu yàlla dëgg moo dem nit la boo xamante ni ñu ci bare xamuñu ko ndaxte wayefam ànd ak ñu daan ànd ak nit ñi taxaw bi mu daan taxaw nit ñi maa ngi fàttaliku keroog bi ñu defee état d'urgence bi dafa bi ma wooyee téléphone dafa ne ma état d'urgence bi de def nañ ko waaye nag li ma ci gë li nga xamante daal moom laa ci gis mooy man sama kaamil yi exeegul ci état d'urgence bi ndax bu état d'urgence bi di jeex ndax trente la ñu wax euh, dina def fukki fan dinaa mën a préparer kaamil yi nga xamante ni moom laa daan amal ci ndar mu doon wax joo xamante ni bi ma ko waxee daf ma marqué lool lool lool parce que nit ñi ñu ngi wax ci ay feebar waaye moom mi ngi doon wax ci kaam yi nga xamante ni ñan la ko jagle doon moo ñi nga xamante ni tey dañu dëddu woon kon tey euh, ci fi nga xamante ni ci la nekk ci diwaan Ndar géej mais di fàtte ni incha allah rabbi suba lañ koy rob waaye dama dama lay xamal ni tey ko gis day sëggamtal dangay gis ay maire yoo xamante ni sax bi ñu jegee xibaar bi dañu daw ñëw ci hôpital euh, di laajte ndax loolu ñu dégg dégg lam jët mu xibaar bu doy waar xibaar la boo xamante ni itam te jàpp ni ndar ñoo ñàkk ndar ñoo ñàkk seen doom yi nga xamante ni bu ñu daan am jafe-jafe moo daan taxaw di wax ak ñoom bu ñu daan am ay wax yoo xamante ni am na mooy jóg lijjanti ko bu daan ay gendarmerie doon xeex sax ak waa police tey moom mooy jóg braver li nga xamante mooy le danger dem wax ak doomu ndar yi kooku tey moom lay ñàkk muy nit koo xamante nit ko am fulla la nit ku taxaw nit ku dëggu nit la koo xamante ni yaakaar naa ni Sénégal gi yëpp ñoo ko ñàkk tey Fatou Kiné Ousseynou ñu sant la bu baax di la gërëm di la massaw itam mu nga kon ëllëg ci kattan yàlla lañ ko fas yéene jébbal boromam ca sëgi Caaka Ndiaye eh, ya nekk ca Ndar Géej doyen Abdoul Aziz dégg nga kàddu yi Ousseynou yëkkati eh, muy ku ku xam ne ku ñeme woon wax dëgg ku ku amaloon njëriñ muy fekk si li nga wax sànq ne dëkk ci dëkk bi bokk ci ñuy defar dëkk bee a gëm loolu la mas gëm te tey eh, Golbert Dourousse du rus du génne këram jële ko fi ñu ko war a jële yóbbu ko fi nga xam ne moom la ko war a denc xam lu tax du rus dafa jàppoon ni ëllëg foofu lay mujj daan fa wàcce kaamil préparé bërëbam daan na jënd li nga xam ne moom càngaayam at mu jot bu génne mu génne ko sarxe ko jëndaat beneen kon bàyyi woon na xel yàlla mhm. te bàyyi xel yàlla moo tax mu man a wax dëgg parce que boo bàyyee xel yàlla mhm. dëgg da lay njomb pour nga wax ko doo ragal ku la mere doo mere ragal ko la mere mhm. beneen bi ci des aussi mu am njariñ pour ñëpp gis nga dafa am yoo xam ne foog ñu koy indi. Euh, euh, euh, soxna Fati gis nga dix-septième siècle. Mm-hmm. li de révolutionnaire li nga xam mooy dix-septième siècle théâtre ci la bokk. théâtre ci la bokk. théâtre boobu sax laa bëgg ñu dugg fi dafa mel ni bokk na ci ñi ko révolutionné euh, tey xale yu bëri fekke euh, génération boobu baara yi ko mais dañuy dugg YouTube di ko seetaan temps yi yaa ngi gis ci ay application yu ñu woowee tik TikTok xam naa euh, père doo ko xam noonu xale yi dañuy def di toppandoo Néné Komé uh-huh. ci aaw buur këram uh-huh. di di ñëwaat ci ci Marie leen seen éloquence élégance mu mel ni kon ñoom théâtre dañ ciy def wàcc pàcc bu am solo mais théâtre populaire pour yar la woon pour indiwaat nit ñi la. moom ji ko gën a comprendre ci la bokk. moo daaw da gisee que ci rend un grand hommage. ak ñi nga xam ne ñoo ko jiitu ñëpp. mais théâtre boobu la doon jaare di wax gis nga ci la nu wane sax appartenance am ndar. ku ma ndar sama ndar. yooyu yëpp ay formule la yoo nga xam ni da lay woon ni nit ki day bëgg fi mu bokk day am nu muy doxalee. kon euh, Golbert ci wàllu woowu mu doon doxal ci wàllu théâtre indi woon na ci révolution fexe ba ñëpp dëgg ko mais fexe na ba ñëpp. bu bis bu jotee Sénégal gépp di ko déglu di ko seetaan loolu bokk na ci li nga xam ne mooy rôle théâtre te moom mu teel ko xam ba pare di ko incarné euh, soxna Fatou ci wàll boobu mag ñi boo waxee ñu ne dañoo nostalgique boobu jamono benn chaîne de télévision moo amoon mais ñëpp dañ daan xaar talaata euh, pour mën a seetaan Golbert Diagne mais waroon a fekk sax temps boobu mu waroon a fekkee ni média bi baree nii mm-hmm. mais booba tamit fexoon na ba ñëpp mais fexoon na aussi ba boo ko gisee ci mbedd mi man koo taxawloo parce que nit ku oyofoon la te gis nga nit oyof dafa am ci moom solo man nga am lu ne boo oyoful nit ñi dun la soxla ba ba Golbert teel naa xam ni métier mi mayoon na ko muy wax ak àddina mais métier mi waroon na ko muy wane nan la nit war a mel ci àddina ak nan la war a nit mën a mel ci ay ñi nga xam ñoo bokkal askan ah, mu ngook ñu dem rek ci buumu jokko bi fekk fa itam keneen koo xam ne jaar na ci ay loxo Mayoro Faye ah, bu parti démocratique sénégalais Mayoro maa ngi lay nuyu Euh, maa ngi leen di fay soxna si maa ngi leen di fay bu baax. mu ngoog ñu jaale la li ñu bokk ndax euh, euh, expérience boo am sa digg ak kooku di Alioune Badara Diagne ñu gën ko xam ci Golbert. waaw ginnaaw bu ñu nuyoo waa Sénégal yi ñuy seetaan yëpp tey ñu ngi jaale suñu bàyyi boobu nga xam ne moom dañ ko ñàkk tey muy Golbert te mu mel ne pour ñu wax ci moom dana jafe dana jafe dana jafe soxna si ndax Golbert ñun bàyyi lañ ko jàppe woon. man ak samay morom yu bëri yoo xam ne bi muy tàmbali quatre vingt dafa am ñun confiance indi ñu jàngal ñu métier wu ay at ba ku bi nga fa jógee bi nga demee am na lu mu la jox loo yóbbaale loo xam ne tax nañu ràññee la mu doonoon nit ku bëgg nit nit ku am yërmande ku jaboot ndax jabootu Golbert euh, Alioune Badara nekkul woon rek ay njaboot gi mu mais ñun ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ak ñoom muy génération boo xam ne mën nañ ci tudd ñu bëri tey bu ñu leen doon bi ñu ci jógee Euh, ñoo xam ne ku ci ne rek am na lu mu def ci yow loo xam ne tey yaa ngi koy jariñoo euh, li ñu naqari rek mooy tey euh, fi ñu ko defee ak ni mu ko defee ni jamono bu xat boo xam ne amuñu mën-mënu taxawu ko ni ñu ko war a taxawoo seedeel ko li ñu ko war a seedeel gunge ko ni ñu ko war a gungee mais dama jàpp ne yàlla mi nga xam ne moom moo ñu bind moo ñu moom ñu ñëpp moo ko tànnal bët waaye itam moo ko tànnal tànnal nan lay demee mu mel ne yàlla ñu ko gën a bëgg te euh, danañu féete ci côté yëpp ba delloo njukkal li nga xam ne bi moom mooy Golbert Diagne parce que euh, bu ñu fàtte ne Golbert Ndar yëpp a ko ñàkk ndax taxawaay bi mu doon taxaw ëpp na taxawu maire ëpp na taxawu préfet ëpp na taxawu gouverneur parce que Ndar dañ ko déggaloon parce que euh, Golbert avait Saint-Louis dans son cœur c'était un grand soldat boo xam ne Ndar rek bu xëyee buy dem boo koy gis mu ngi dem mu ngi dox mi ngi taal otoom mi ngi dem ci mbooloo mi ngi waxtaan mi ngi def émission mi ngi def ca lépp lu muy def ndar la si jiital koo xam ne itam waajaloon na bis bi ndax ñun ñëpp euh, fàttaliku nañ ne defaroon na barabam fële ca marmial takk année muy organiser ay récital de Coran yoo xam ne yi ay junni ay junni junni ñoo fay dem di jàng alxuraan di ko ñaanal way dawlu yi kon bisam bi tey dañuy ñaan rek yàlla xare ko àjjana waaye itam euh, di euh, jaal ay doomam yi nga xam ne wax dëgg yàlla yar na leen fa mu leen war a yare ci kenn ku nekk yaa ngi incarné li nga xam ne mooy valeur yi Golbert def ci yow. très bien ma soxna si ñu ñàkk wax itam Golbert générosité ak euh, ni mu bëggee dëgg ak ni mu bëggee jàmm ñun ñii daf ñu defoon comme ay morom. te yàlla xam ne ne mën nañu ji daf ñu defoon benn waxtaan mi ngi may fàttali léegi rek bi mu wax téléphone naan ma da nga fàtte ne Golbert euh, euh, poisson d'avril bi mu doon def di annoncé defeem ci mois d'avril la tey yàlla nga ko jël ci mois d'avril kon nga xam ne lépp rek ay téemaan la ñu ngi koy jaale Sénégal gépp di ko ñaanal yàlla. Euh, mu dajeeg yërmande yàlla te it ñun tam ñi nga xam ne ñun la bàyyi ginnaaw lépp loo xam ne li war na suñu diggante moom daañu xool nuñ koy defee ànd koog njabootam incha allah. jërëjëf Mayoro Faye euh, ni nga ko waxee Golbert Diagne dëkkoon ku positif foofu ca ndax géej sax dañu fay dellu euh, fekki fa keneen itam ci ku fa toogal groupe Futurs Médias bi si laa xam ngeen ko ci rajo bi Mouhamed maa ngi lay nuyu. ñoo ngi leen fay soxna Fatou. mu ngoog euh, jaalewaat leen encore une fois kii ñu ñàkk waaye itam tey euh, ni ko nu waxee loolee itam ngay dëggal ndaar géej ñëpp sa naam ci jamonoy confinement lañu nekk. waaw jamonoy confinement lañu nekk doon jamono joo xam ni tey ji ndang Alaaji Golbert Diagne su fi newoon ba léegi lépp loo xam ne aju woon na ci wàllu sensibilisation coronavirus bi le doon na ci ràññeeku bu baax a baax ndax saa yu fekkee réew mi soxla na ci bépp catastrophe bu mu mënti doon ci bépp yëngu-yëngu bu mu mënti doon ak dalal askan wi Alaaji Alioune Badara Diagne ràññeeku woon na lool ci lu demee noonu waaye itam li nga xamee ni mën nañ ko cee jàpp ndax ñun ñii dañoo jaar ci ay loxoom mu tàggat ñu yee ñu tegtal ñu teg ñu itam ci yoon woo xam ni ku mën antenne bi mi ngi ne le demal bis boo waxee c'est le monde qui juge tey ji El Hadj Alioune Badara Diagne Golbert man nii dama bokk ñi nga xamee ni daf leen révélé tey ji au monde mënuñ ci loolu lépp te itam du ñun dong ndax bari na lool ñoo xam ni tey ji ñu ñuy dégg ci wàllu ci ay nit ñoo xam ne sax tey jii ñoo ngi ci yeneen i domaine Alioune Badara Diagne Golbert daf leen tete taataan leen teg leen ci yoon woo xam ne tey jii ñoo ngi jëriñu di jëriñ seen njaboot waaye itam di jëriñ réew mi Alaaji Alioune Badara Diagne Golbert ci formation citoyenne boo xam ne doon nañ ko gis ci yenn ci ñoo xam ne dañoo nekk ay ndaw bañ pilimal seetal leen def leen nangam nangam nangam ku ci ràññeeku woon la rawatina ci émission yoo xam sax daf ko doon def booba ñoo ngi nekk ay tout temps ci Saint-Louis euh, midi ci ndar ràññi ca RTS ba mu nekkoon booba retraité gul mu doon modèle de formation boo xam ni doon nañ ko gis ñu bare tàggatu ci loolu ba tey jii ñu mën a am taxawaay bu wér ci biir réew mi Alaaji Alioune Badara Diagne Golbert c'était un patriote accompli c'était Euh, un citoyen modèle un républicain jusqu'aux os 4 avril bu mën ci jot da koy waajal taxaw ni nga xamee ni noonu la kenn ku nekk war a mën a taxawee réewam administration bis bu soxlaa day wax daan ni amatuma soxla ci rajo bi nga xamee ne amee naa ko su fekkee réew mi état bi dafa soxla lépp jël leen ko ngeen jébbal ko askan wi parce que réew mee soxla ku noonu modèle la ku noonu tey jii it ñi mu taataan ak li nga xamee ni sax daf ko doon def ci biir ay doomi aadama ñoo xam ne dañ nekkoon ci ay soxla ñëw guddi tiis ko ci ay euh, seeni soxla yu demee noonu lépp loo xam ne nit jox nag muy kilifa muy autorité Aline dañ daañ Golbert denc ci danga soxna Faati daf ko jël toog bi am ay nit ñoo xam ni daf leen doon dimbale di leen jàppale nit ñooñu ñëpp tey jii ñoo sëngee mu tey dëkk bi yëpp moo sëngee mu su fekkee gis nañ li nga xamee ni tey jii nit ñi wutali l'hôpital bi ñu déggee xabaar bi ak ni nga xamee ni noonu lañ dundee tey jii ndànk ku fi nekk xam na ni am na lu rëy rëy loo xam ne xew na fi ñu koy ñaanal yal na ko bëgg yàlla yërëm te xare ko àjjana yal na bëgg yàlla bankeel njaboot bi nga xamee ni des na fi te lépp loo xam ne aju na ci euh, dundam yal na doon jàngat ci ñun ba ñu mën ci taataanu ñun ak suñuy moroom réew mi yëpp Sénégal soxna Fatou. amiin yaa rabbi Mouhamed Nabi Silla wax ji rafet na euh, ni mu ko waxee moom aline Alioune Badara Diagne euh, Golbert euh, Abdou Aziz Mam Fama dinañ ci dellu siwaat ci li mu wax modèle de réussite réew mi dañ koy soxla ku mel ni moom jamono ji parce que bu waxee ñëpp dégg ko mu mel ni laata ñu ñëwaat ci ponk yooyu dañuy dem ci bu mu jokkoo bi ndax gouverneur bu Saint-Louis mi ngi ci bu mu jokkoo gi monsieur le gouverneur ñu ngi lay nuyu. Alioune Aydara Niang moom mooy gouverneur bu Ndar Géej moom nag euh, moo nekk ci buumu jokkoo gi euh, euh, gouverneur. bonjour madame ñu ngi lay jaale ki nga xam ne moo dëddu tey muy Alioune Badara Diagne Golbert foofu nag ca Ndar Géej na nan ngeen dundee bi la xibaar. soxna Fatick ñu ngi la koy jaal yow tamit. Mm-hmm. di ko jaal Sénégal bi yëpp. di ko jaal waa Ndar tey jii tiis bu rëy dal na ci senegal dal na ci jullit dal na ci képp koo xamante ni Ndar Ndar man tey sama xol fees na lool ndax euh, Alioune Badara Diagne Golbert dama amoon ci moom ñaari jër benn bi mooy diggante mbokk ndax euh, suma seconde épouse Eh, yaayam jabaatu Golbert la bi ma installé Saint-Louis le 20 janvier 2015 li mu njëkk wax mooy suma gor nga fii dafa amaat beneen jabar gor la may woowee ba semaine dernière duñu mujjee wax ci affaire couvre-feu bi état d'urgence bi mesure yi ma jël dafa ma ni gor je bi si des euh, mooy relation bi ma am ak moom ma qualité de gouverneur de région depuis janvier amul benn bis bu nga xamante ni Golbert manifesté wu son soutien puisque ndax des fois ñu traversé ay moments yu waaye Golbert dafay jël tànkam jël làmmiñam wax liy defar ba ñëw ci gox Golbert jullit la puisque les Camille de Saint-Louis Golbert moo ko fi instauré ci amul benn événement pour euh, ndar dir am bu gën a rëy Camille yi Golbert di organiser dafay fees dell ñëpp solo weer tàll ci début à la fin dafay jooy xamoon na ni bés bii dina ñëw waajaloon na ko Golbert góor la quel soit rapport bi ma am ak moom ci côté bi ma njëkk a wax ak ci côté état Golbert ne m'a jamais posé un problème personnel musul am man maa ko naan kañ nga dem Dakar mu ne suma rendez-vous kañ la c'est di yónnee oto bi sama gestion dafa na carburant il dit noonu gouverneur Goro ma ni non sama participation la musul posé benn nit benn problème ku amoon bëgg-bëgg ci président Macky Sall affection bu wóor lay téeméer président Macky heure bu président Macky Sall ñëwee Saint-Louis je l'ai accueilli au moins huit fois à Saint-Louis huit fois Saint-Louis mais yépp Golbert dafay taxaw Golbert du wax lu yàq du def lu yàq du lig la gor la dem na ci bis bu rafet àjjuma bi yàlla sunu borom teexte ko se ser dansi nandal ko ci géeji Kawsara gi mu tudd dafa ko tawfeex fa mu nekk ba mu rëccu lu mu doon def ci àddina c'est une grosse pour le Sénégal. jërëjëf euh, gouverneur ñu koy euh, jaale moom bu baax a baax mu nekkoon gouverneur Alioune euh, Aydara Niang nekk gouverneur bu Ndar Géej jëg ngeen kàddu yi yi mu yëkkati nag teg ko ci Alioune Badara Diagne mi ñu dëddu tey ci juróom ñaar fukk at ak juróom-ñeent mu mel ne itam ñu ci bu mu jokkoo gi ak beneen kilifa muy monsieur le ministre Abdoulatif Coulibaly monsieur le ministre maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu. mu ngoog euh, nga nekkoon itam euh, ay jamono jëriñ bu ñu dénk wàllum caada ministère euh, ministre de la culture Alioune Badara Diagne taxawaayam pas-pasam ci réew mi ak itam fànn yu ne kenn du ko naatable tey yan kàddu yu seede nga mën a yëkkati. li may fàttaliku sëñ Golbert maa ngi ko njëkk ràññee boobu xale bu ndaw la doon déglu lu bari sport ak rajo. Mm-hmm. ñu nekkoon ñett ñoo xam ne ñii nekkoon ci région yi Balla Bass Diallo ci Ziguinchor sa Thioumbi ci Kaolack ak moom Ngone Père Diagne ci Saint-Louis mu nekkoon koo xam ne kii boo ko daan déglu wax dëgg yàlla ku mënoon la muy def la gannaaw loolu yàlla def na ma nekk ministre de la culture bi ñu mujj a gisee ma moom d'ailleurs Saint-Louis la woon ma demoon présider yi festival de jazz bu Saint-Louis ñu amoon lu fay waxtaan ba ma nekkee journaliste am seqoon nag moom seq la nga xam ne mooy mag la ma doon rakk mu liggéey ci benn micc bi te it ba muy def rajo bi am na loo xam ne seqoon nañ ko ci maam moom it wax toujours fu mu dajewoon ak man la koy wax waaye li Sénégalais yëpp jàpp ci moom mooy kilifa gu mot kilifa la woon bëggoon njaboot ku bëggoon dëkk ba mu dëkk la nit lañuy ñuy ràññee ca la njëkk ci mbaax mooy ràññee fa nga dëkk fa nga bawoo xam la nga fa représenté ak fa nga nekk fa nga dëkk lu mu représenté te loolu booy seet loolu di ko jooju ci Golbert Diagne defe naa ne bu ko ëppalewul ci réew mi kenn ëppale ko ci ci bëgg-bëgg bu mu bëggoon Saint-Louis ak lépp loo xam ne dafa takk ci Saint-Louis ak doomu Saint-Louis jékki ci doomu Sénégal ak Sénégalais yi am neex deret boo xam ne bii lim daan wane ci télé bi ñu naan paa jafe bi ci théâtre bi nekkuloon li nga xam ne mooy li muy dund ci àddina nit ku yaatu woon la nit ku bari jàmm nit ku mënoon la muy liggéey nit ku ràññe woon ku service comme ni ko tubaab di wax di ñaanal yàlla ñaan yàlla mu xare ko àjjana yi nga xam ne moo gën a kowe ci àddina ya jox ko kër gu dend kër yonent bi njaboot gi fi bàyyi ñu ngi leen ay jaal ma ci jiital d'ailleurs gouvernement bi nekk ci yéen di reporter sportif bu ñu ràññee ndono lim wane ci bàyyam ndono lu am lu xam ne dal xel la yal na yàlla uuf leen uuf njaboot bi fi bàyyi may wax nag pour jeexal Sénégal nag perte bu rëy la am fii ci présidence de la république may waxee muy kilifa gi dina ko gën a biral ak gouvernement bi plus kilifa président de la république ak képp koo xam ne yaa ngi takk ci officier lu Sénégal yi ñu ngi jaale mbokk yi sëñ bi wàññeeku jaale itam doomu Sénégal yëpp parce que tiis bi ñun ñëpp a ko bokk. jërëjëf euh, monsieur le ministre euh, Abdou Latif li nekk itam ministre porte parole nekkoon ay jamono ministre de la culture gis ngeen kàddu yi mu yëkkati euh, mu mel ni doyen Abdoul Aziz mi ba tey kàddu seede yi loo ci dégg rek dañ naan la kilifa gu mat kilifa muy taxawaay bu am solo daan yeete yoroon troupe ba noppi itam ndar mu dëkkoon mu amal leen njëriñ. mu amal leen njëriñ dëgg la Fati waaye di nga xam ni kilifa. dafay teel a ràññee. gis nga maa ko gis léegi ñu takkal ko li nga xam ni mooy euh, mooy. Euh, raaya raaya bi. Mhm. loolu mooy président la République teel naa rek reconnaître ñu koy jaale moom. Mhm. monsieur le président la République Macky Sall ak le ministre Abdoulaye Diop de la culture. Mhm. ak ñoom Koundoul ak ñëpp. beneen bi gis mooy monsieur le président de la République Abdou Diouf teel naa ràññee ni. nit ku war a jariñ askanam la. moo tax bi mu koy wutal rajo daf ci taxaw je parle sous le contrôle de Mbaye Sidi Mbaye. Mhm. ñoom ñëpp mu taxaw leen ni la nanu fexe ba mu teel a am rajoom. Mhm. parce que xamoon na ni njariñam du rek rajo bi mu retraité mais njariñam mooy wax feneen. ba mhm. askan wi di ko dégg. demoon na ba. rajo Teranga FM. moom lañ daan déglu ci xabaar yu gën a ëpp. que rajo ba mu nekkoon. wane nag tamit ni ndar rek moo ko soxaloon. Mhm. moo ko soxaloon. Mhm. lii euh, ministre euh, Abdou Latif Coulibaly que je salue au passage. Mhm. wax mooy am solo nee na nit da ngay xam sa bopp. xam fi nga jógee. xam lan mooy sa lan moo war a nekk sa taxawaay. ak lan nga def pour war a jariñ sa réew. moom laa waxoon léegi. bokk ci dëkk bi. bokk ci ñuy defar dëkk bi moo ko gën. kon loolu mooy li nga mm-hmm. xam moo feeñ léegi. Mm-hmm. ci wax ji gën yëpp ci ki xam mooy Golbert. beneen itam kàddu muy générosité am générosité am euh, ñëpp loolu la ñu wax générosité ci xam-xamam générosité ci poche am parce que da daan dimbali euh, ñi nga xam ne euh, seen loxo lu seen ginnaaw ba noppi itam daan former ay jeunes tey mun nañ ne ñi jaar Teranga FM te tey ñu nekk ay taskati xibaar yu ñu ràññee bari nañ. mais na nañu parce que ña fa jaar ñëpp gis ngeen ji ko wax ñoom Ousseynou. Mhm. ak euh, Mohamed Nabi. Mhm. ñoom ñëpp ak ñeneen ñoo xam ne waxuñu. Mhm. mais beneen bi ci mooy li nga xam lu muy jariñ askanam. kooku mooy nit koo xam ni. poosam lu ci nekk bu génnee gis koo xam ni daf ko soxla mu jox ko ko mais ku wóolu yàlla mooy def loolu mm-hmm. ku wóolu yàlla mooy def loolu parce que xam na ni boo joxee ñu jox la mm-hmm. kon loolu mu def dafa topp ndigalu yàlla boo amee mm-hmm. dimbaleel ki nga tane man ma man ma yokkal la kon Golbert musul ñàkk te ñàkkul dara ndax li mu am ci ñu ko bëgg ñu ko am ci ko yéene mais ñi ko am aussi ci li nga xam ne tey jii moo koy war a accompagner ci ñaante àggunu ndar bis bu ne tey jii nit dina ko ñaanal koo xam ne doxul dajeek moom jox ko loxo. Mhm. te loolu jikko bu rafet. Mhm. ak bëgg sa réew ak xam lan nga doon moo koy baral. tout à fait ñu des ba tey ci euh, édition spéciale bi dem euh, ànd ak Salif Sow ci nataalu Aline Badara Diagne Golbert. bàjjan baag maam baag yëpp dara. na yëpp de. Aliou tey la ko ko tël. jeex na jërëjëf kaay guddi tey jii. waaw su dara sotul ba ëllëg bëccëg dara kam lañ la koy jox bëccëg waaw. foo ma see gisee ñu jébale ba cëg foo ma see lu mel nii ay fatu seen fi ñu koy jëndee ci nekk ndax juróomi fat ah. mën kon ëllëg daal ci bëccëg nga ko bëgg bu fekkee dafa tey ci guddi tey ci guddi mbaa ëllëg ci bëccëg rek moom mën na doon tey ci guddi ci bëccëg yàllaay dogal yàllaay dogal lan yi daal bu deñee dana doon ci guddi bu deñulee bu ëllëgee ma def ko def rek dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi moo ko gën Golbert Diagne kàddu yooyu saa su ne da ko doon yëkkati di ko fàttali ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkkee ndar ak it fépp ci réew mi sax ba ñu bari di ci toppaat baat yooyu la Golbert Diagne ku ko tudd xel yépp dem ca ndar ndar ku ko tudd xel yépp demit ci Golbert Diagne moom da doon yëngu ci wàllum tasum xabaar ndar-ndar bile baatam ak it li nga xamante ni mooy bërëbu liggéeyukaayam di rajo ba daf ko tegoon daanaka l'école la woon ñu bari jaar nañ fa ba tey ji ñu doon ay journaliste yu mag wala boog ñu nekk ñuy liggéey ci rajo te am ci cër bu mag a mag fépp ci réew mi la Golbert Diagne mësul nangoo dem sax à la retraite ndaxte ba mu retraité ci la song rajo bi nga xamante ni moom mooy Ndar rajo boobu Ndiaye ki nga xamante ni mooy xaritam nekkoon fi président de la république di Abdou Diouf bokkoon na ci ñu dugal ci loxoom ba mbir moomu la taxaw Golbert Diagne journaliste la woon Golbert jaañ comédien la woon artiste bu mag bi du benn ku mandar wala sàmmandar moo ko nangoo baare yëgoo ginnaaw ba mu xamanteeg moom Youssou Ndour du moom mooy kiy wedd kàddu yooyu le wóoroon la ci wàllum liggéey ku bëggoon liggéey la ku doon dem ba jeex la ci la mu gëmoon ku gëmoon la ndaxte ak wu nekk ñu ngi fàttaliku ne Golbert Diagne da doon wàcceel kaamil way dawlu tamit teg ci nettoyé sëkk yi nga xamante ni ñoo nekkee soor cemme wala sax càkka càgget ndar Golbert Diagne dem na dootul ñëwati waaye njàngaleem ba faw sax na dootu fi jógeeti merci Badara Diagne ku woyofoon xol te bëri woon yërmande moo tax itam fu mësaan a wax rek euh, xolam tooy euh, ñu des ba tey ci euh, buumu jokkoo gi am na keneen ku ñuy dalal muy usmaan Dia usmaan ñu ngi lay nuyu. ça waaw mu ngoog yow yaa nga fële ca Londres jaaroon ci loxoy Alioune Badara Diagne Golbert ndax jaar nga fu ci mel ni rajoom boobu nekk ca ndax Géej. waaw dëgg la euh, ma leen di gërëm bu baax di koy jaale Sénégal yëpp di koy jaale Sénégal yëpp ndaxte man Dakar laa jóge woon dem Saint-Louis liggéey au niveau de la RTS lu ma njëkkee jaar RTS nekkoon foofu ak moom ak euh, Vieux Doro donc mu jógee am projet boobu pour ubbi rajo Teranga bokk naa ki ñu njëkk ñi nga xamante ni ñun ñoo ubbi woon rajo bi rajo Teranga sax muy euh, mu jël ma man benn Pape Makhtar Diop ak Seydou Guissé yóbbaale ñu jële ñu euh, fekk ñu jóge RTS ñu ñëw foofu ubbi rajo bi démarré rajo Teranga FM euh, voilà donc euh, muy vers les années quatre vingt seize quatre vingt dix sept mu samp si ñun nag def si ñun comme ni mu doon comme li mu doon wax rek Golbert dafa di ki nga xamante ne ñun mun mënuñu ko fay man mënu ma ko fay samay collègues yi ñu ma nekkaloon mënuñu ko woon fay comme ñu mel ni comme benn pamakta bi wax nañ ko Kal Didier Kal Kalidou Dia nekk RTS ñoom Bouba Euh, euh, Bougane Gueye Dany ñoom Mayoro Faye ñun ñëpp après ñoo fa nekkoon à la à la à la rajo Teranga donc euh, ñu def liggéey bi nga xamante ni daf ñu yokkoon fit daf ñu dolli loon fit ndaxte fu ñu doon dem ay doomu Golbert la ñu doon woowee ñun dañ doon dox ñu ñu ne ay doomu Golbert tellement que ne ni daf ñu jëloon uuf ñu ci rajo bi lañ doon añee ci rajo bi lañ doon reere foofu lañ doon nekk guddeeg bëccëg mu jàpp ñu boole ñoom njabootam man mii di wax ak yow tey bokk naa ñu njëkk a jox Malal Diagne junior micro mu wax ci rajo maa ngi fàttaliku ba ma koy njëkk a jël dugal ko ci studio jox ko micro Golbert dafa ñëw fekk ma foofu ne ma ussu bàyyi xale bi mu dem jàng ci boo ko dugal ci rajo tellement que ne ñun ñun ñëpp benn la ñu woon donc nekk na ki perte bi nga xamante ne tey maa ngi koy jaale waa Ndar yëpp euh, képp ku dégg sama baat ñi ma ñi ma fa xam bëri nañu donc ku dégg sama baat xam ne li ma seqoon ak euh, Golbert Diagne ak Teranga Fm donc muy li nga xamante ni naxar la ñun maa ngi maa ngi maa ngi jàll ñëpp métti na lool amul nu méttewul donc euh, muy li nga xamante ni image yooyu rek laay retenir ci moom parce que daanoon na ko wax def euh, dëkk ci dëkk bi deful dëkk bi gën muy ne man man man Samba Dakar la ma doon wooyee parce que bon euh, dafa doon ne Koumba Ndar man Samba Dakar la ma doon wooyee parce que j'étais presque je faisais partie des rares Dakar waa yi nga xamante ni bi ñu bi ma jugee Dakar dama ñëw liggéey ak moom au niveau de la rajo donc vraiment métti na lool ma koy jàll ñëpp donc di koy jaale sama ancien collègue yi tamit ñoom surtout euh, ko tamit ci doomam yi ci njabootam ñoom Malal ñoom Sufi Diagne ñoom Diédo ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn ba pare nag euh, voilà teg ci képp ki nga xamante ni maa ngi doon liggéey ak ñoom au niveau de la rajo Teranga au niveau de la RTS ñoom bi Guissé maa ngi leen di jaale ñoom ñëpp wax dëgg yàlla maa ngi leen di jaale ñoom ñëpp yàlla suuf sedd ci kawam yàlla na ko yàlla xare àjjana yu gën a kawe Golder euh, vraiment kenn mënu ko fay kenn mënu ko fay. kenn mënul fay Golda jëf Ousmane euh, Dia nekkoon euh, foofu ca teraanga euh, FM tey jii ma nga ca Londres ci Angleterre mu mel ni kon liñ doon wax sànq doyen Abdoul Aziz ñi jaar ci ay loxoom bari na Mayoro Faye parti démocratique sénégalais Ousmane mi ngi wax sànq Bougane Gueye Dany ñi fa jaar bari na. Ah, dundam niilul dundam niilul ci li war nit ak askanam. Mhm. dundam niilul ci war li nit ak métier mooy jàngal nit métier ba ëllëg tey ji nga dégg ko foo xam ni mhm. la ngay bànneexoo mooy ah kii de fexe naa ba tey lii mu doon mu doon ko mhm. mais lim koy def yëpp taxul mu bàkkoo ko tamit mais xoolal li mu wax léegi am na ci ñoo xam ne ba nëgë ni ñu ngi leen di former na leen bàyyi leen ñu nekk ci biir askan wi. di jariñ yoo sax lu toll ni lam doon jariñ. waaye taxul ba tey mu def ko. kon bokk na ci nit boo mënee dara mën a lal ki nga dendal. mën a lal ki la yor. pour bu ëllëgee la mu man mën koo jariñ réew mu mel ni yow yaa ko def. très bien euh, mu mel ni kàddu yooyu euh, itam ci la ñuy dem fekki euh, keneen koo xam ne itam ku xam Golbert la di suñu naataango maama Moussa maa ngi lay fay soxna Faty. mu ngoog euh, di la jaale nag lu ñu bokk ku ne xam na itam sa diggante ak euh, Golbert tey euh, kàddu seede yi lan lay doon. Faty maa maa ngi jaar sama sëriñ Abdou Aziz. def na nag tey man su suba sax dama xëyee ndar. Hmm. bi ma xëyee ni doomu ndar yëpp du defee noonu laa ko defee dem xëy ci armeel yi. armeel yi nag yàlla dafa def boo fay dugg rek dangay romb li nga xam ne moo di armeelu sama papa Golbert Diagne. foofu nag sama yaram daw la wax dëgg yàlla te booba sax xaw ma woon ne lii am na bi ma ñibbisee sama kër laa yëg li nga xam ni moo di xew-xew bu tiis bii di leen jaale di jaale Sénégal yëpp di jaale ndar ndar yëpp wax dëgg yàlla Golbert man sama papa la sama papa laa mën a wax sama papa la ndax Golbert ak sama pàppa dañoo bokk doon liggéey ci fi nga xam ne moo di rajo fii nga xam ni di RTS mën naa jàpp sax ne sama apprenti papa la woon waaye Golbert dafa mel ni man dafa ma mës a jàpp comme apprenti yàlla def na nag euh, Golbert ñu bari sax dañoo jàpp ni dañoo liggéeyandoo ci FM Teranga waaye man musuma liggéey ci FM Teranga waaye ku ma gis rek mëtul sax fukki fan ak juróom yàlla xam na ni Racine Talla mi nekk ci RTS gi mi ngi may wax naan ma jamono yi nga nekkee Teranga FM ndax jege bi nga xam ne jege naa ko Golbert Diagne su gisee Golbert day mel ni sama papa laa gis cër gi ma jox kersa gi ma jox ak ni nga xamee ni noonu la mën a di diisoo ak man yenn saay yi dama naan est sama papa nit mën na ko def ak man ndax saa yi nga xamee am naa jafe-jafe wax dëgg yàlla ci moom lay dellu waxtaan ak moom mu ne ma defal nii ak nii ak nii ak nii ba jàpp naa sax bis nii dem naa ba RTS gii ma nekk nii sax ñu arrêté ko sama contrat waaye moom laa dem waxal ba ma waxee ak moom mu ne ma incha allahu yi nga dellu foofu ndax yow sa papa sa yaay say waajur liggéey nañu li nga xam ne wax dëgg yàlla man xam naa ne li nga am rek mérité nga ko te mën nga sa liggéey fonk nga sa liggéey am nga yar am nga tra ni ma ko waxee woon la amee bi ñu mujjoon gisee ñi nga xam ne RTS dafa ñëw fi nga xam ne moo di ndar ñu def lu ne Golbert dafa feebar mënul ñëw ci émission bi ma fekk ko ci chambre ak coucher Golbert ni ma dinaa ñëw bokk ci émission bi ci RTS ndax yow sa bakkan ndax cër gi ma la jox boobu ak léegi saa yi ñu gisee wala bu ñu déggantee téléphone la mu mel ni sama papa bi ma jur ak Golbert laa yemale mën naa jàpp sax ni Golbert daal ñun ñoo ñàkk ñun ñi nga xam ne ñun yàgg nañu tàggat yàgg ànd ak ñun yàgg dañu gunge euh, presse bi Saint-Louis gii ma toog nii di wax presse bi fii mosuñu yëkkati dara defuñ ci Golbert maa ngi fàttali jamono yi ma nekkee Walfadjri nga xam ne bureau sax yàlla xam ne ne aw ma ko woon bu ma xëyee kër Golbert laay dem toog ci studio am mu ubbil ma studio yaatal ma lépp lu ma liggéey soo ba ngoon maa ngi koy liggéeyee foofu dem naa sax ba information sax bu ko amee yàlla ak moom laa koy jëlee ak Teranga FM moom kooku mu mel ni doomam laa ci biir Teranga FM Golbert daal li ñu mën mooy ñaanal ko ñu ngi koy jaale ñu ngi koy jaale ñëpp ndax nag ñoo ñàkk Sénégal moo ñàkk maa ngi koy jaale it samay rakk samay mag ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal rajo bi muy RTS waaye nga xam ne ñooy waa TFM ndax wax ngeen ko sànq TFM këram la mosoon doon te loolu it mos na ko dëggal saa yu ne RFM rajoom la mosoon doon ndax ban demee ba RFM sax bëgg a samp fii daal dem na ba ni sax day jël rajoom di ko synchroniser ak RTS dem na ba ni mu RFM sax bu mënul am émetteur moom mën na jël émetteur am def ko foofu fii ci Ndar pour RFM nit ñu di ko dégg te loolu mos koo nangul kenn naa ne RFM këram la TFM këram la loolu moo tax ma ni dinaa def témoignage fii ci TFM Sénégal àddina yëpp xam ko xam ni Sénégal ñàkk na Golbert ñàkk na parti mënu ma wax nag ndax boo seetloo sax kàddu yi moom dafa xaw a jaxasoo ndax fii ma toog nii ak sama waa kër ñëpp ñu ngi nekk ci tiis ma leen di gërëm di leen sant ci cër bi ngeen ma jox yéen it waa TFM di leen delloo kàddu gi jërë euh, kooku mooy euh, Mame Moussa Niang nekk euh, fële ca RTS di suñu naataagoo jaar itam ci loxoy ba Badara jaañ Golbert ñu ko koy jaal bu baax moom itam di ma Moussa Niang nekk itam suñu naataango nekk taskatu xibaar ñu des rek ci bu mu jokkoog itam mu xool beneen kilifa bu nekk foofu muy Baba Mal baaba Mal ba ngi nuyu. maa leen di nuyu. mu ngoog euh, artiste bu kenn dootul euh, présenté ba euh, Badara Diagne Golbert am nga seede bu am solo boo nar yëkkati jëm ci moom gannaaw ban la jaalee ñu bàyyi la ak téléspectateurs yi. maa leen di jaale suñu kilifa suñu papa Golbert ndax wax dëgg yàlla Sénégal dafa ñàkk nit koo xam ne ki nii li mu def ci Sénégal ak li mu mel comme symbole ci Sénégal def naa ni. kenn umpale wu ko donc maa ngi leen di nuyu d' abord euh, Abdoul Aziz ak euh, yow soxna si di jaale Sénégal yëpp maa ngi jaal nag waa Saint-Louis Ndar parce que pour man Golbert symbole Ndar la symbole Ndar la dans tous les domaines ci citoyenneté koo xam ne kii xool saa yu mësee génn wax defe naa ni loolu ñëpp day dellu ci biir euh, ci Saint-Louis mooy dëkk bi nga xam ne mooy cosaanam wax nañ ko léegi nit ki da ngay bëgg fi nga dëkk bëgg sa bopp bëgg sa cosaan xam ki nga doon xam sa responsabilité ñun loolu la doon dugal ñun ci suñu biir xol ak suñu biir xel ak suñuy xalaat man nag personnellement dama am loo xam ne lii mën naa ko témoigner ci Golbert te def naa ni yu bari xam nañ ko bi ma nekkee élève ñëwul nekk li Charles de Gaulle Euh, balaa may dugg ci aar sax def naa ni Golbert mën naa ni mooy koo xam ni ki moom moo njëkk yëkkati micro mu tàllal ma ko ma woy ci place Rognan Sud ci ngoon sa laa dellu au lycée Charles de dégg sama voix xaw moon sax sama baat naka la mel ci rajo mu nekk depuis loor nag koo xam ne kii fu ma gis daf may encourage di ma ñaax góor góorlu ci li ma bokk ak fi ma bokk muy Sénégal wante itam ci sama dëkk Fuuta mais surtout ci Ndar parce que man lu lépp lu ma am Ndar moo ko may mais su ma ko Ndar may itam mën naa wax ni Golbert boobu moom moo ma ko may parce que mag la boo xam ne bii dafa woyof euh, xam li nga xam ne moom mooy ak diggante kilifa ak xale bu tuuti boo xam ne mu ngi jéem di wut yoon di am talent peut mais nag amul su xamul fu muy teg tànkam mais Golbert saa yu ma yegg see ndar ni muy defal doomu aadama yépp la may defal mooy ubbil ma boppam ubbil ma xolam euh, vraiment wane que ni Sénégal dëkku hospitalité la ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. Euh, tout récemment def woti woon nañ fi avec les jeunes defe naa ni ñëpp gis nañu Golbert bi mu taxawee sama wet def témoignage bi nga xam ne bi wax dëgg yàlla bariwul li koy nit di témoigner si man. dem na ba sax dafa ni baaba gisee doomu aadama yi nga ne leen Golbert moom ma njëkk taan talal micro wax nga ko waxaat ko mais li ma gën a bëgg a seede waa Sénégal mooy que ni ah, Golbert bay na waaram Golbert xam na lan mooy nekk sénégalais Golbert xam na lan mooy nekk citoyen Golbert def na kéemtulaay kàttanam ba nga xam ne bi bépp jeune sénégalais boo royee ci moom ci taxawaayam nga xam ni mën na lépp def na lépp parce que yàllaa ko ko defal mais musul baisser les bras di continuer di ñaax di yee di gunge defe naa ni sénégalais bu nekk boo jëlee exemple boobu di nga xam nooy taxawee ci biir Sénégal kon nag seen une grande perte pour le Sénégal pour la culture pour le le milieu de la communication mais aussi te milieu de la jeunesse parce que Golbert mag la boo xam ne bii dafa wàcce boppam suufee boppam di ànd ak xale yi suba subaak ngoon guddeeg bëccëg pour di leen won que ni sénégalais engagement la nekk sénégalais c'est un engagement pas pour sa bopp mais pour ñeneen ñi nga xam ne ñoom nga bokkal dëkk wala nga bokkal ñoom région wala nga bokkal ñoom réew mi en tout cas c'est une grande perte pour le Sénégal ñu leen koy jaale di ko jaale le président di ko jaale waa Saint-Louis di ko jaale nag toute sa famille surtout nag ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk nag moo am euh, adduna bi moom mooy ñoom Marie Madeleine ñoom euh, Néné Komé ñoom euh, Daba jàlloo ñoom ñëpp daal ku lim juum waaye maa koy jaale waa Sénégal yëpp jërëjëf jëf euh, Baba Maal euh, kàddu yi rafet na moom it euh, mu am lu mu séq ak Golbert kàddu yi mu yëkkati doyen Abdoul Aziz foofu la ñuy jeexalee muy rek li mu wax gëm boppam gëm ndaw yi tax mu suufeel boppam ba nar a ba mën a ànd ak ñoom firnde bi mooy bi mu waree jël retraite dafa dem sóobuwaat ci liggéey jëlaat ay ndaw di leen tàggat. di leen tàggat loolu mooy yëfu nit mooy fexe ba li nga man nga jéem a fexe boo te jariñ si réew nga fexe ko àndal nga jariñ ko ci. Mhm. looloo tax maa ngi dégg benn témoignage bi muy def ci rajo bi muy ñëw sànq mu ni bi muy may Youssou Ndour pour mu yéeg ci bi ñuy def Papa Samba Diop mbaa lam la ci reyante ak lan la ci xeex ba ba jox ko micro bi. de la même manière noonu la defal Baaba Maal moo lay wan ni kooku mosul tàggoo ak gëm ndaw ni ëllëgu réew ndaw moo ko yore. Mhm. ëllëgu réew moo ko yore ba pare ndaw bu bëggee yor euh, ëllëgu réew dafay nangoo liggéey. Mhm. la mu nekk daf ciy jàpp. fexe ba am ci manoore joo xam bu ëllëgee na ci teral boppam teral ci njabootam teral ci askanam. Mm-hmm. waaye damay am ay yoo xam ni dama leen a bëgg a euh, ku mel ni Mbaxu Mbeng mm-hmm. bis bu ne mu ñëw fii ndar la nekk. ci ñaar madame Diouf bi nekk nga xam ni moo nekk délégation générale pèlerinage di doomu ndar. Mm-hmm. waa Kalaaf. Euh, convergence des anciens du lycée Ahmed Fall ñooñ bu ñu daan jëw ndar euh, di daan def annonce yëpp. ci Golbert moom la daan jaar moo ko daan wax parce que ne luy indi ci lycée Faidherbe ba ña fa jànge woon di indil ay matériel didactique di indi ay télévision di ko indi yóbbu ci foyer ñooñu tey jii waa Kalaf yooyu tey war nañoo delloo njukkal ki nga xam mooy Golbert mhm. parce que bu ñu fa daan ñëw laata ñu fay ñëw dama daan ànd ak ñoom mhm. te Golbert daan na def lu am solo ci li nga xam ne ñoom waa Kalaf noonu la def ci lycée Faidherbe bi nga teew di la Dia. Ah, président Youssou Ndour ñoom maraaj ñëpp mooy aide office waaye di jaale biraan ak ñi nga xam ñoo fi nekk mm-hmm. di ñaan yàlla yàlla na fi déggëj te yàlla na euh, réccu lu mu doon def ci àllaaxira ci àddina mm-hmm. yàlla na ko àllaaxira gënal tey jii mm-hmm. àddinaam te lépp lu mu mas a defal ndar defal ko lu baax yàlla na ko yàlla fay maa ngi gërëm di leen sant bu baax amiin kooku moo nekkoon Abdoul Aziz Mbaye maam femme nekk itam suñu doyen ñu àndoon ak moom ci waxtaan bi ñu jagleel Alioune Badara Diagne ñu gën koo xam ci Golbert di jaalewaat encore une fois euh, Sénégal yëpp rawatina Ndar waaye itam euh, sunu naataango di Malal Diagne junior nekk doomam nekk fii ci groupe Futur Média euh, naka noonu itam di ñaan euh, borom bi mu xaare ko aljana tey itam mu dëddoo njaboot gi jàmm ñu euh, wéyal xibaar yi mbokk yi wax itam ci leneen muy euh, bilan tey ji euh, ci aljuma ji ñetti fan ci weeru avril atum 2020 soxal jàngoro ji di Covid 19 ñu téeméer ak fukk ak ñett yi ñu defal test yi fukk ak ñaari ñoom ñoo am jàngoro ji juróom ñaari loolu ñu naan ay cas importé la ñeneen ña des leen ko wàll fii waaye itam beneen xibaar yeeg muy fukk ci téeméer ak fanweer ak juróom ñaari ñu waxoon démb fukk ak benn yi wér nañu ñu ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ bu ñu denk wàllum wérgu yaram tey àjjuma ñetti fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na examen test yi ci téeméer ak juróom fukki ñett ak test yu ñu def fukk ak ñaar ñoo ci positif fukk ak ñaar yooyu juróom-ñaar yi ay cas importé la mooy cas yu jotee bigim réew ma yëgal ne juróom-ñaar yooyu suñuy mbokk yu demoon tukki ñëw ñu tey leen fële ci frontière Vélingara bi ñu leen testé le 29 la ñu yegg si ñu gis ne ñoom dañoo am jàngoro bu dul juróom-ñaar yooyu juróom ñoo positif ñoo xamante ne ay contact la yu ñu doon suivre ma yëgal tam ne fukki patient ak benn yu ñu hospitalisé woon wér nañu tey ministère de la santé mu ngi leen di yëg leen yeneen patient yi ñu ngi yëg tan ci bésu tey bi bu ñu commencé ak léegi ñaar téeméer ak juróom ñaari cas la ñu déclaré fii ci Sénégal juróom benn fukk ak juróom benn yi wér nañ benn carré décès lañu ak kenn ku ñu évacué ñu jàpp tey ne téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ñoo nekk tey hôpital ñu leen di toppatoo. mu nekkoon Abdoulaye Diouf Sarr nañu dem ca ministère de la santé fekk fa Alhassane Ba Alhassane maa ngi lay nuyu. Fatou Dieng maa ngi lay fay. mu mel ni nag euh, six régions la mbir mi laaloon waaye dafa mel ni mu ngi yokk parce que foofee ca Vélingara ca région bu Kolda euh, juróom-ñaar yi dafa mel ne itam ci boor boobu lañ leen gisee. absolument Fatou wax nga ko léegi région yi mu laal yokku na euh, wax nga ko juróom-ñaari région Tambacounda jël na wàllam Vélingara enregistré na setti cas juróom-ñaari cas yi nga xam ne. ay cas importé la fàttali nga ko léegi jëwriñ ji itam fàttali na ko ci extrait bi jàll léegi ay cas yi nga xam ne nag ñoom Libéria la ñu bàyyeekoo euh, depuis le 29 nag lañu leen defoon quarantaine euh, ci loolu sax euh, ki nga xam ne moom mooy jëwriñu wala boog ki nga xam ne mooy le maire de la localité mu ngi doon wax sax di woo askan wi ñuy collabore xam nga ngara boo ko waxee gox la boo xam ne dafa def frontière ak ñetti réew lu ci mel ni gàmbi ak ñaari Guinée yi kon dafay baax également au-delà des forces de sécurité ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi def liggéey bu am solo askan wi itam ñu ciy dugal seen loxo xam nga des fois gars yi bu ñu dugg bu ñuy bëgg jàll ci maay yi askan wi ci seen bopp ñu ngi xaar ci ñoom ñuy dénoncé kon loolu faat yi dafa nekk fàttali bu am solo ndax ñu ngi ko doon wax démb rek experts yi fa taxawoon fii ci màkkaanu jëwriñ jër wàllu wér-gu-yaram prévention bi mooy xeex bi du prise en charge bi kon dafay baax également au-delà de prévention boobu noonu askan wi ci seen bopp ñuy dugal seen loxo di dénoncer ñi nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo ci yeneen réew yi wala wax ci yeneen diwaan yi di ñëw di jàll fi nga xamante ni moom mooy sens interdit yi ci loolu nag Fatou Dieng wax nga ko tey kaa yi dañu yokk fukk ak ñaar lañu am juróom yi ay cas contact la kon ñu gis ne Euh, bu ñu defee comparaison ak démb mu nga xam ne juróomi cas lañu amoon dañuy gis ne rek euh, yokkute am na wante nag euh, Fati test yi ñu def tey moo ëpp test yi ñu defoon démb ci loolu itam ñu gis ne également tey Sénégal jàll na lu toll ci ñaar téeméer ak lu teg ak juróom-ñaari cas yoo xam ne tey dugg nañ ko muy beneen baar boo xam ne franchir nañ ko kon dafay wane rek beneen dayo boo xam ne wala beneen taxawaay boo xam ne askan wi war nañ cee taxaw xam nañ ne le président de la république tey dana janoog askan wi muy veille fête indépendance nga xam ne cérémonie rek lañuy def prise d'armes fële ca palais de la république euh, xam naa ne tey ci discours am dana ci ñëwaat ñu ngi ciy waajal sax ay plateau ci kanam wante xam nañ ne lu ci ëpp ñu ngi xaar ci moom mu ñëwaat ci li nga xam ne mesure yu mu war a jël ndax gis nañ ne moom déjà promulgué na loi bi nga xam ne mooy loi d'habilitation bi Euh, état d'urgence bi également danañ ko prolongé loolu yëpp ngir fexe Fatou ba gën a taxaw bu baax a baax ci li nga xam ne mooy coronavirus ak euh, ni muy def ci àdduna bi Sénégal nag ñuy sant yàlla bu baax a baax booba léegi Euh, di naqaru rek benn cas bi nga xam ne moom mooñ lañ ci ñàkk muy Pape Diouf ci fàttali di ñaan yàlla rek yàlla xaree ko àjjana ak benn évacué boobu noonu booba léegi nag ñu jàpp ni ñi nga xam ne ñu ngi leen di topp ci jamono ji euh, seen i wér-gu-yaram mu ngi am tan Fatou Dieng di fàttali rek mbokki askan yi ñu gën a taxawaat bu baax a baax jekkalaat euh, seen taxawin ndax lii di coronavirus li ñuy wax rek on en guerre faw ñu defaraat serrer les ñu topp digal yi nga xam ne ñu ngi ñu koy digal boobu ba léegi kilifa yi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci wàllu woowu buñ ci tënkoo rek jàpp nañ ne yàlla mën nañ ñoo dimbale ak ñaan yi ñuy jot bés bu ne euh, ñu daan feebar bi Fatou li ñuy tëjee rek mooy yéen a ngi ci doon débattre boobu ba léegi mooy masawu askanu Saint-Louis masawu askanu Sénégal ci ñàkk ji ñu ñàkk muy ñàkk ju rëy muy suñu papa Golbert Diagne di ñaan yàlla rek yàlla xaree ko àjjana di ñaanal suñu naatango di Malal Junior Diagne di ñaanal groupe Futur Média di ñaanal ñëpp yàlla def kii di suñu papa ji fi jóge suuf oyof ci kawam ndax moom ci boppam wane la bon wane na la bon exemple depuis le début ki nga xam ne ba dem na tànnal boppam li di bàmmeel kon kooku mu ngi bàyyi xel yàlla bu baax a baax te mu ngi joxe itam benn leçon bu rëy euh, ci ñi nga xam ne ñooy jullit yi kon Faty Dieng foofu la ñuy tëjee rek delloo la antenne bi. ba ngoon incha allah ak plateau yi ñuy waajal bu soobee yàlla jëm ci euh, daan opération daan coronavirus ñu koy amal bés bu jot bu 17h jotee ci télévision Futur Média ak supportu groupe Futur Média yëpp Faty Dieng jërëjëf kooku moo nekkoon Alxasan Ba moom it ñu sant ko bu baax gërëm ko jaale ko itam euh, sunu way jur boobu encore une fois Malal Diagne junior suñu xel mukk euh, du jóg ci moom ci euh, tiis wile fàttaliwaa rek ne Sénégal kon weesu nañu loolu ñu naan barre des deux cent ñu ngi ci ñaari téeméer ak juróom-ñaar yu am jàngoro ji coronavirus juróom-benn fukk ak juróom-benn wér nañu kenn ñàkk ca bakkanam keneen ka ñu delloo ko dëkkam jamono ji ñu yàddoo Sénégal nag mi ngi ci téeméer ak fanweer ak juróom ci ay ay yu nekk ci am pàcc euh, région yi itam juróom-benn yi yokk na juróom-benn la woon euh, Tambacounda jël na wàllam euh, naka noonu itam Kolda ak fële nga xam ne Kolda buñ ko waxee Vélingara moo tax ñu wax ko yegsi nañ ci ponk bu mujj li ci yéenikaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye.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 de la santé professeur Moussa Seydi professeur Amadou Diarabey docteur Abdoulaye Bousso ak docteur Alpha Sall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 catastrophe yooyee coronavirus bi jural liggéeykat ya ca sat rek grand place mi ngi koy méngalee ak couvre-feu la sinekaay nañu ca saare te mu di société africaine de raffinage liggéey amatu fa lépp ne tekk ne kàkk ndax brut ba ñuy liggéeyee moom la gisatul l'observateur a nationale Sénégal njiit la di Amadou Samba Kane di ñuy wax ci biir l'observateur ne bés bu yàlla sàkk dinañu ñàkk lu ma téeméeri million ak fukk l'observateur nañu tenak ñu tanee ko fuuf ñi ci secteur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 lakk néew bi. Mohamed Ndiaye ñëw sant la bu baax gërëm la sant leen yéen tamit ci safoo bi ak kóolute bi desandi leen ak programme bi télévision Futurs Médias di leen ñaanal kenn dal jàmm di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf ci seen safoo.